mu di ndono bu tedd bu sell jaar ci loxo ku tedd ku sell mu yonent bi sallallahu alayhi wa su ko defee nag kon mbir mi mangoo sëriñ bi wax ne leen li mu ci bëgg kii di première gàmmoo bëgg nag taalibe yëpp ñëw fu taalibe ma nekk Sénégal wala ci biti réew na ko teewe parce que loolu ñun rek ñoo ko sañ di taalibe ñu woote bis bu day na gàmmu amoo benn ngànt bu bu bu valable nga dem gis naan sax Dakar léegi am na taalibe yu bari dootu ñëw gàmmu Tiwaawan dañuy organiser gàmmu ci seen salle woo ay quelques intellectuels loolu xeet Tiwaawan la loolu xeet Tiwaawan la ku ci ni nga bokk wala gën ba tariqa bi du dëgg boo ko gëmee xeeboo da nga ñëw fekk guddi gi ak loolu tuma tumuranke mais bés bi du bésu mbéxte du bésu am la nga bëgg bésu coono la ñun nga waaye nga màggal ki ñuy màggal ni ñëpp nga ni danga koy defe si nii jaaxanti sa saal woo ñi la neex togg say kii indi say gâteau bon jigéen ñi ñëw muuru toog fee kenn ñëw benn oustaz ñëw ni moo lay wax yonent bi yooyu xam nañ ko te man keneen leen man keneen leen dañu koy surveiller nag taal bi nga xam ne bu gàmmu jotee dañuy lànk duñu ñëwati léegi tiwaam te ni alaaji maa ngi leen yaakaar duñ leen ci neexal jamais te duñ leen ñaanal lii wit nag dëgg-dëgg ndax bu ñëpp defee ne ñoom Tiwaawan day weddi te Maodo waxoon na ci lu am solo ndax dafay gàmmu xool jàkka ji gis ni nit ñi bariwuñu mu mer mu nu may gàmmu suma gàmmu di wét te ku am tariqa bi te muy dëgg maa la ko jox te mu wét maa la ko jox wala kala ko jox mag ko jox ku fi am lijaasi te mu wér maa la ko jox wala kala ko ko jox te mu wér la wax am na tijaan yu ko fi jiitoon waaye li ñu doon doxal kenn xamul lan la moo doo ñëw leeral lépp gannaaw bu mu def itinéraire bi mu def këru tijaan bu mu dem marakis tijaan yëpp mu dem fa noor fa nawet fa yëq la ñu am ci lu baax dajale ko a doole ñëw toog am ndigalu yonent am am ndigalu Cheikh na Tijaan am ndigalu Cheikh Omar Fuutiyu radiyallaahu anhu loolu moom la def boo wootee bés bi la yow nag nga dem a dem ba juddu bët ki dem rek di ndaw yaa gan yaa adduna mane na le gan nga am bu ko def ñetti at rek ngay taxawaan da ñàkk la nga amul lépp parce que loolu fonto tiwaawan la te surtout yaa ngi nii wax naa leen ko bëgg dem naa naa leen neen képp Seydi Hadj Malick di sa maam foo mën a nekk bu gàmmu jotee ak lu mu sori sori na nga ñëw ci gàmmu si moo xam États-Unis nga nekk moo xam yaa nga moo xam yaa nga dans les îles de Maldives moo xam kenn xamul su jotee na nga ñëw gàmmu si ndegam Maodo mooy sa maam ngir sagal ko ak bokk ci yiw wiñ fi séddale ndax nga am ci ba am ñoo xam loolu ñuy def léegi waaw waaye waxoon naa ko ana ko ko fi jëkki dem na bu jàpp ñeneen dañ ci toog man maa la ko wax su ko defee kon sëñ baa ngi dénk daayira ak fédération yi ñoom ñëw ñoom ñëpp waaye nag ñu respecté discipline bi ak melokaan yi nga xam ni sàkku nañu ko ci ku fii ñëw ci Tiwaawan ndax Tiwaawan ko laaj bu ñu ñëwee ñu dal ci dal yi léegi tabarkàlla nit ñaa ngi fi góorgóorlu di fi am ay kër day yaa ngi fi am kër te ñu ngi continuer ndax dolli nañ ci dëkk bi sept mille hectares te ñu ngi koy commencé di ko lotisir léeg-léeg nit ñi wax ne ay ci Touba nangam man Touba teewoon bokkuñu dëkku Serigne Touba la moo ko moom sant Mbàkke tubaab yi sànni ko fa amul yoon amul ndox mu toog muñ ko résister ko ba yàlla defal ko banam ko fa defal Touba war nag ñun doxandéem nañ ci alaj maa ngi dafa fi toog moom ñu fi lu dul li ñu te li ñu dëkkee dañ ko jëndaam nanguwuñ ko ci kenn buur may ñu ko kenn maylu ko kër goo fi gis nañ ko jël fii ngeen toog naar bu ñuy wax Bichara Macky moo ko moom ñu jënd ko bu ñuy wax moom moo ko moomoon ba ca topp dikk sëñ Babacar gi beneen naar bu ñuy wax Muraay dëkk Maroc moo ko moomoon ba ca topp fi étage bi nekk noso ko moo ko moomoon mu jënd ko ci nag wuñu suuf kenn

mbooloo wasifa ci kër ga mu nekk yiwu waa kër ga bu jaamu jotee ñu jóg àndandoo def ko mbooloo bu ñu mënul dem ci jàkk ji wasifa ñu àndandoo def ko bu mbooloo di ñaan fu ñu toll jàng alquran bu ñu xëyee lu gàtt gàtt ñu wàcc benn kaamilu alquran yéen ko gàmm gi ak boroom gàmm gi ak ñi ko ko sosa di Seydi Hadji Malick ak njabootam gi fi desoon doon ko défendre loolu sëñ bi ñu ngi koy dénkaane sëñ baa ngi dénk les hommes de sécurité te moo di les gendarmes les policiers les douaniers ñu déggoo ak pèlerins yi amit tolérance la ci bés bi ndax bés bi moo laaj tolérance euh, il faut dana ci am ñoo xam ni ñii nañuy doxalee dana xaw a njàng waaye nañ leen corriger rek bu yem tëggaat leen ci yoon ñu ñëw nga xam ne Sénégal moom problème bi ñu gën a jaaxal mooy problème mu sécurité ak problème propriété Euh, ñi ñi wër nee nañu dëkk yëpp Sénégal réew yëpp Sénégal ak Côte d'Ivoire ñoo ci gën a tilim ñu ne Sénégal région de Thiès ñu ne région de Thiès département Tivaouane ak bu Mekki ñoo ci gën a tilim parce wax leen ko loolu gàcce la nag dañu fexe ba mu set mbalit yi bari na foo dem gis ko këyit yi parce que kenn du bali lu ne dañuy wax oto bi ñëwul tey bu oto bi ñëwul nga sànni pexe oto bi ñëwul oto rek du du jël mbalit na la jaral dara yow tam ku nekk xam na mbalit li muy wàññi tilim li muy indi waaw ci ay feebar ak yeneen ak yeneen loolu ñun ñëpp ñoo ci war a bàyyi xel nag Sénégal ku nekk di bale sa kër. bu ko nekk bale sa kër bale sa buntu kër mbedd mi day set mbedd mi day set soo amul tibo évacuation mais nga gas ci sa koñu kër fab ay xeer sol ca ba fees ndox moo am tuur ko ca balaa ëllëg suuf si ko naan bu ëllëgee nga tuuraat ba bëggee am évacuation parce que am dëkk yëpp amaguñu évacuation ñun ñii amaguñ ko tuwaan amagu ko ñu ngi koy sàkku waaye nag dootu di ko néeg rek dañu bëgg dëkk yi set mbedd yi set loolu dafa baax dem naa Togo mais mosuma gis dëkk bu sete noonu xam dëkk bu sete noonu am na ci Afrique ñun tam góorgóorlu nag surtout ñun diine ni mu fi ni mu fi wesaaroo ak diine ni mu bëgg set ba sant la eh, juróom yoon nga set gannaaw ba nga sangoo suba mun la na nga jàpp pour pour pour tisbaar takkusaan timis gee waaw nga tëdd la bay tëdd nga tëddaale jàpp yi wu la yàlla yéene ci guddi yi mu yónnee la ba tëddaale woon la lu xew yow mu ngi leen di dénk ñu am tolérance am tuuti yërmande amit cofeel ci chauffeur yeeg ñu amee ay marchandise bu dul bu ëpp rek ñu def ko tolérance euh, ñoom itam ñu digal leen nag ñu jaar yoon chauffeur yi chauffeur yi wax dëgg yàlla ñoom itam danañ di faral di wàcc yoon lool ba mu ëpp surtout xale yu ndaw yi léegi ay xale yu quinze ans seize ans la ñuy jox ay permis de conduire ñiy conduire oto yi di yóbbu nit ñi ku am quinze ans seize ans sa xel dana am lu ci manqué xel mi ngi mat ci quarante ans moo tax yàlla du yónni benn yonent te amul quarante ans ma ci la xel di mat doole mi ngi mat ci trente ans mais xel ci quarante ans yoon ci yàlla Isaa rek la yàlla ma si yónni te amul quarante ans su ko defee xaleel du conduire nga jox ko oto boo xam ni dafa def ay nit yu yiw fees dell oto bi nga jox ko ko muy nañax nañax ak ñoom bu ci yàlla deful sutura rek mu mooy am ndax xaleel xaleel bu daal desul mu mu dëgg man li ñu ragal day daal di tàqali ko sago lu ne mën na ci xew ba dafay yéen chauffeur yi itam ngeen ànd ak yar ànd ak discipline li nga xam ni kuy conduire war na koo amee yëpp ngeen ànd ak loola te la ci jëkk mooy sago defit oto bi lu mu àttan ngeen àndandoo indi nit ñi delloo leen boobu lañ leen sant te ànd ak yàlla nag am na chauffeur yi yare dikku ñàkki teggi du ñu wax wax bu rafet ak client ñooñu itam ñu ngi leen di wax ni alt nañu am yar nit fu mu toll dafa war a am yar sama bàyyi daf nu daan wax ah, bu leen ni alaaji maa liggéey seen maam wala ma ni may seen bàyyi ba du ngeen am yar fu ngeen toll na ngeen am yar na ngeen nit ñi ci yar na ngeen jëmanteeg nit ñi ci yar mu ni gis ngeen yar lu buntu xat-xat bu dikkee xaj mu ngi yari di ko lu buntu yaayaa bu dikkee du jaxay def naa ko daaw jël xeex ci buntu affaire étrangère ci boulangerie bi rek benn xale moo fekk jox ko mille francs ñu ko jë jaay mu mburu mu puusaat ma ko ci façon bu réew ni ma aw ma weccit ko non mille francs bi wax nga jaay mu ko lépp mburu mu deleen wax ci kaw ma ne ko ah waaye ñu présenté avec tes clients mu puusaat ma mille francs ñu ma jaayatuma man tam ma dëggan koo yari dugal man ko man fii lay jënde laa dugg bunt bi fekk ci biir dóor ko benn koos comme noonu la ko loolu la ko ci mel ni naw taalibe yi nekkoon foofu ñëw mara di taali séqatoo ko seetal rek yare di naar bi ñëw ñu ko dàq naar nekk benn bu ko dàq man duma naa ko ba boo ci tege dàq ko nag mu gën a métti war rek yar te am na loo xam bu ko defoon loolu yëpp yi ñu mel kenn yaru leen seen wax du neex du rafet surtout les chauffeurs nag les chauffeurs dañu ñàkki tegit su ko defee nag kon ñu ngi leen koy digal ñoom chauffeurs yi ñu respecté clients yi ñuy am ñu amit tolérance ci ñoom te dox ndànk ndax bis bi dafay xat mbedd kawtali bi dafay xat ñu ngi ji ñaan commerçant yi ñu góorgóorlu ñoom itam di installé fu ñu joxe ndigal pour ñu installer fa ah, ñu ngi leen di dénk itam ñu doxal yoon indi marchandise moo xam ni baaxatul dafa périmé date bañ ko war a jëfandikoo jeex ba nga indi ko yooyu yëpp joxe nañ ci ay ordre bu ñu ko gisee nañ ko saisir buñ ko gisee lañ ko saisir nañ ko nangu te borom lu ca ñu def ko wax kooku mën na rey nit yoo defee na kon ñoom itam di commerçant yi moo xam ñu gan ñi la ñi biy jaay si wala ñi ñu fekk ci dëkk bi tey nekkoon ay commerçant ñoom ñëpp nañu góorgóorlu liñ jaay laaj yi njaay laaj ñu def ko parce que commerce mooy buntu koom-koom bi gën a am solo ci koom-koom yi mbay commerce industrie soo bayee da koy commercialiser commerce bi su sakkanee mën industrie waaw te industrie nag mooy dayu koom-koom yi ci àdduna bi yëpp yoo defee kon nag ñu ngi leen koy dénk yi gan yi ñëw ah, ah yoo rek nag am na ay ñu sant ca ay caaleen kii ay ndaw kundaa ñoo xam ne poos yi jàmbur bu ñuy jëkku la nga dem mi na baal dañuy daal di dagg la ca nekk rek te dañ ci gaaw gaaw gaaw am ci pexe xam naa def la waaje defoon rek dañoo toog ndeysaan di waxtaane ñi ñu sama benn nijaay sama yaay yónni ko Dakar boobu maa ngi Dakar ko ci man maa jox ko mu wax ni naa ko góor gi def ko ci poosam ci marché Colobane ñu dagg poosam ñu jóge ci ak ñaqam ñëw ñu ma porté ma mooy porte plainte yow xamoo ki dagg sa sa poche naka lay porte plainte danga gën jiñaati danga defee nag ñooñu yëpp ñu bàyyi leen xel ah dénk itam waa Tiwaawan sëriñ baa leen di dénk yéen ñëpp ngeen accueillir gan ñi ak kanam gu leer ak dënn yu yaatu defar woon yi ba jigéen ñee góor ñi mën a am fu ñu telloo gan la gën a metti ci moom mooy mu dal fu mu amul fu mu telloo du doy ci Tiwaawan même ay ay toilettes ak yëpp ñu koy indi ñu ngi sant nit ñi itam ñu tabax dolli ci toilette yi donte dañ koy tëj ba gàmmu jotati itam day dañ ko dolli rek yooyu yëpp teeru gan yi ndax gan dafa am àq waaw gan dafa am àq te sama bàyyi nee na gan fa muy daal xaju fa yooyu ko fu gan di daal mënu ci xar kanam mais bu leeree yaatu rek gan yaatu su lëndemee ñëkk lu néeg yaa yaa gan moom du yaatu moo tax yow mii teeru gan gi nag nga amee dënn bu ubbeeku waaw dënn bu ubbeeku te muy dënn bu yaatu boo amul dara sax ndeysaan wax ko rek wax yu neex leeral sa kanam da leen gis ku ne man ma koo xam ne buy ñëw du la indil dara du la indil du ci sa yow koy teral ko rek yàlla tax yàlla tax te yàlla xam nañu ni ñi nekk fii de lu ñu am danañ ko jox waa Tiwaawan ni alxaaj Habib gan yi yonent bi lañu ngeen jëgg ci yàlla yéen waa Tiwaawan teeru leen te teral leen te taxawu leen eh, su ko defee nag kon tabarakallahu loolu rek la sëriñ bi war naa ko jotal mbooloo mi ñii ñëw ak ñii fi fekk ñu xam ne daal ki ñuy màggal ku màggal yàlla wax na ko ci alquran ci terme yu bari ci terme yu bari man ko ñu ko yàggal ñëpp yemalewu ma la kenn ndax dangaa mel ni mel ni mel ni jox ay pro bëgg ko rek defal ko ko déedéet ni mu bëggee noonu la yonent bi mel moo tax mu wax ko yim ko wax yëpp wa rafa'naa laka dikrak kooku inna allaha wa malaa'ikatahu yusalluuna ala nabi yaa ayyuha alladina amanu sallu seetal yàlla ni mu toll ak mag ay kuréel nga xam ne tuuti la ci dindi mosle naan maag sama malaaka yi sax dañuy julli ci yonent kon nag yéen ñi ngeen xam ne yéen ay woy gëm di leen julli loo jaamoo ji jaamoo ji yàlla bu julli ci yonent bi jotee rek wutal rek lim bu ndaw lim bu ndaw doonte fukk ak ñaar wala fukk wala eh, ñaar fukk wala fanweer wala ba téeméer nga julli ko ci yonent bi jagleel ko ko rek chaque jour bu heure ba jotee nga defal ko ko rek daa gis lim la jëriñ ak li mu soppi ci yow allahuma salli ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain ku ko yóbbu soo ma nee salaatul fatiha nag moo gën ci salawaat yi moo ci gën a kare waaw ah, yonent bi eh, moo ko jox Cheikh Ahmed Tijani bi ñu ko nee bi ko Mouhamadul Machid laajee ñaari salaatu lañ yu mag ci suñu tarix salaatu fatiha salaatu jëfantu tumaan ban moo ci gën loolu ñu ci def am ah, defe naa ne salaatul fàtte mu war a gën kawe ndax jawharatul kamal yonent moom la ko dicté ne salaatul fàtte nag ca xadara ba rek la jóge ko ci a gën parce soo ko mënee jullee moom def moo ci moo ci gën te dañ wax bu wér ndax salaatu yi des yëpp nit a ko def message fayal bi kenn mën laa ko ci xadar rek la jógee ñëw ci yoon ñëw ci yoon te mu jëkko Cheikh Ahmed te mu gën a kawe ci salawaat yi loolu nit yàlla yi ko ba ñi ci am baax yéen boobu ma ci gën ma eh, ko yi ah, ñaan de xaw ma nag moo ko boobu mu li ñaan muy dem ci waaw ñu ko am ñaan leen nga defe ne kon ñu ngi gërëm ñëpp ñu ngi gërëm El Hadj ci gi nga liggéey rek wérul mag la léegi moo mën a yem ku ci dox da ngay soow nga yore yett man léegi yett lay yor ah, ah âge di ci àgg rek yal na ngeen ci àgg ba xam ak mag mu métti ngeen mos ko yal na ngeen ko mos ko waxoon bu yàgg na li ko Serigne Pass Ndiaye góor a Isaf góor a Isa Ndiaye mu ngi dëkk si gën a Kébémer mu ñëw kane si ma Thiès ndeysaan mu indil ko reeru maa ngi góorgóorlu ko defar yàppum mburu dikk taajal ko mu mu toog rek ñu ubbi muy ñu ngi koy tuddee ñamu tubaab mu daal di ni lël ko yàpp la mu jóg togg ak tëlaal ni mag bu leere yi mag cere lay reere waaye wutal ko cere indil ko eh, meew mu lekk ba suur indil ko lu lii lan la dañ ko koy téye nga jug delluwaat ma ah koy téye jabar bu ko lekk mu dëgër ko laaj sax waaye boo xoolee benn banaana jox ko nag mu lekk ne ah mu teg ci nag keroog ba mu ko tàggoo di yi ko ak gi man mi tëdd noppaloo nag man maa ngi dem loolu mooy Abdoulaziz ak mag dafa metti waaye yàlla bum la ëmb waaye léegi laa ko xam man tam yoo nekkee mag j'ai quatre-vingt-cinq ans quatre-vingt-six ans am sam yéen am lu ko ëpp yàlla bu leen ak mag ëmb ñu gërëm leen bu baax gërëm ñu amee presse yu gàmm gi d'abord Coskas président président président bill Clinton Ousmane Sam ak ay collaborateurs ñoom Alaaji Malick Dia rek ñeneen ñeneen ñeneen ñoom ñëpp a ngi toog eh, Moustapha Sy Moudir ñii ñooy responsable yi COSCAS ci la presse bi yëpp dugg nag ci responsable ci wàllu presse bi yëpp ñoom ci lañ dugg ñoom Serigne Kaw la xëy na itam da nga ki ñu ko tuddee Kaw la xëy dëkk Alhaji Abdou Kan maa moom nañ ko tuddee Abdou Hamid Kan ñoom ñu ko Serigne Kaw la da nga di taw ak moom ak Khalifa général Cheikh Ahmed Tidiane si ñu yóbbu ko ay xalifa bi de léegi nag loo wax ñu ngi leen di. Thierry Cissé d'abord Thierry Cissé am tool bi ñëw gis nañ ko baax na c'est très bien loolu Thierry baax na rafet ñu ngi leen di félicité di félicité seen àddu ci kalima bu am solo bi mu wax waxal ko xadara bi ñun ñëpp ku wax xadara bi nga waxal fii ma toog xalifa bi laa fi toogul Cheikh Ahmed Tidiane waaye ay rakkam laa fi toog Serigne Mbaye Sy Mansour Serigne Hadji Malick Sy Maodo Serigne Mbaye Abdoul Aziz ñooñu laa laa xam ne ak jigéen ndaw ak jox ma kàddu naa leen waxal yal naa wax lu dëppoo seen bëgg-bëgg. ñuy sant itam presse nationale ci ñëpp nag ñuy jël ci appareil yeeg ñiy bind tabaarakallah ah métier mu metti la métier mu ingrat la daje ku la gën daje ku la saal yëpp ngi ci waaye ngeen muñ rek nag yéntu waaye léegi ngeen léegi ngeen rattax ko nit mu saf saf mu muñ yéen tam bu leen ko nit rattaxee rek muñ leen <laughs> noonu ngeen muñ xam ne ci yi gën am solo la bokk waaw fasalu ahla dikri in kuntum laa taalamuun alquran boo xamul laajal ki xam yéen ñuy xamal li xew bu ñu xamul ñu laajal loolu la yéen ti loolu la alquran wax laajal ki xamul mu wax la li xew kon d'accord na ci presse nag laa tasalu ana saa in tubda lakum taslikum waaye nag mauvaise information nag baaxul ma ni moom alquran loolu wax information baaxul suñu den ñu ngi leen sant sonn ngeen ñeen ngi dem fu nekk ci Sénégal fu dul Sénégal bi ci réew loolu lépp ñu masawu leen ci mun loo leen ay ndaw ngeen il ngeen def ay coono waaye loolu yëpp itam mbéy ci mi moo ko laaj ku tayal mënoo ko doxal fu nga nekk ku sawar lool lool ñuy sant ñu jigéen ñi ak ñu góor ñi ñu yore presse bi ci Sénégal ñu góor ñi ak ñu jigéen ñi ndax kenn ku nekk yaa ngi def si kamte moo leen tax a bàyyi seeni kër ñëw yand si biir Tivaouane ngir jël li ñu fiy wax mu jege ci xalifa bi jëm ci jullit yi nekk Sénégal ak ku dul Sénégal mu ngi leen di nuyu yéen ñëpp nag di leen masawu di leen ñaanal ah ku nekk ak sa façon moom spécial la mu ngi commandé di doxal li mu bëgg doxal te kenn gis ko lu yéeme la mu ngi doxal li mu bëgg doxal. ngi wax ak man par message defal ma nangam joxeel ma nangam yónnee ma alal yu dul jeex nit ñi xamoon sëriñ muy talibi yi di ko jox moom nag mooy jox talibi léegi mu yónnee ma cinq millions deux joxal ma ñoom diw lii joxal ba bërki démb ma ne ko ah est que doo ko wàññi ma jamono neexul mu ni may su ma ko amee aw mu mbonnu xañ leen ko

joxe wàcc nga nga defee noonu lay doxale moom ku nekk ak sa façon ak sa mode moo xam nag su defee kon yal na yàlla may ko yàgg ko jiite moom tam mu toog lu day ne ñi fi jóge li ñu fi toog wala lu ko sax euh, te lépp baax gàmm gi yàlla bu baax yàlla na jàpp na ci ñëpp di ñaan ndax ku ci ñaan it yonent bi nga ñaanal du man nga ñaanal du El Hadj Mansour Mbaye nga ñaanal déedéet yeneen nit nga ñaanal su nga defee ñu gërëm ñëpp nag sant ñëpp ñaanal ñëpp jàmm yal na yàlla defal ñu jàmm defal leen ah, ci guddal loolu waaye la laaj ah, ndax eh, sëñ Mansour def sëñ Mansour mu tedd moomu dafa ma ni woon Abdou ñaag boo xam ne boo ko ñaagee ren bala nga koy ñaagati déwén soo koy ñaag doo fo da ngay ñaagati waaye bu mel nii rek bii rek la déwén rek lay amal incha allah su ko defee nag kon ñu jotal leen lool rek ni moom la ñu def nañ ko ah xëy na bu doon moomu gën a am solo gën a piir waaye nag ñun suñu kàttan wax fii la toll ñu ngi gërëm ñëpp di nuyu waa Sénégal yëpp di leen siyaare di leen balu àq di leen balu àq allahumma salli ala sayyidina محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق موصل الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها ولد ونصيرا